abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér aju si mi ak ci bitim réew. nga xam ne Maimouna a mi ngi fii ak euh, ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk plateforme bi yëpp damay bañ a lim di fàtte ñenn ñi ñu ñëw tey kon pour accompagner ay Daffé ànd ak moom ci li nga xam ne moom la ñëw pour teewal Ousmane Sonko comme ni ko candidat yëpp amee bi ñu defee loolu nag ñu gis ni bi ñu yegsee première jafejafe bi ñu seetlu mooy bi ñu yegsee capitaine bi ñu fekk dane dafa jot ay instruction yoo xam ne dañ ne ko nañ xaar bala ñuy xool ndax ayib dafe day dugg wala du dugg bi ñu xaaree ab diir lu toll ci fukki waxtu ak juróom ci la ñu ñëw daane ayib dafe na ñëw euh, bu ko defee ñu recevoir ko waaye buy dugg du àndaale ak huissier bi loolu mooy première jafe bi ñu constaté parce que huissier moom acteur de la justice la kenn amul droit ab huissier ñëw ci biir euh, administration ni day dugg ci kër wala day dugg ci benn bâtiment administratif ñu ne ko doo fi dugg kon huissier bi duggul dugaluñ ko dafa xaar ay dafa ci buntu bi bu génnee mu wax ko lim ko li nga xam moom lañ ko wax mu doog def constat kooku mooy première jafe-jafe bi bi ayib dafa génnee nag li wax leer na nee na le directeur des opérations électorales mooy ki nga xam ni lépp luy yëngatu ci mbirum élection yi moom am moo ànd ak le directeur général des élections moom moo ko recevoir bi mu ko recevoir li mu wax dani ko ñun communiqué bi ñu defoon nga xam ne ñoom def nañ ñaari communiqué yoo xam sax dañoo wuroo parce que ñaari communiqué yi boo ci liir ak li muy wax la beneen bay wax sa bokkul defoon nañ communiqué ñoom waa DG le 20 defaat nañ communiqué la 30 ñu ne ñoom ci seen i communiqué lañ sukkandiku ba ñoo jël fiche de parrainage di ko jébbal mandataire Ousmane Sonko léegi nag loolu ñun jàngat biñ ci war a am ñun sénégalais yi mooy président Macky Sall dafa décider ne Ousmane Sonko di candidat comme tous les autres candidats mu taxaw moom Macky Sall yoon ni mag Ousmane Sonko am na droit jël ay fiche de parrainage am pour dem pare na ji comme ñëpp te lii ñuy teg Ousmane Sonko mos ñu koo teg benn sénégalais moom Macky Sall mu ne day taxaw jaay doole ni waa direction générale des élections bu leen jox usmaan Sonko ay fiche de parrainage am kon loolu li nga ciy jàngate mooy. ñoom dañ ne woon Ousmane Sonko dañ koo génne woon ci fichier électoral bi ndax dafa am décision de justice léegi ñu ni décision de justice moo ko génne woon ci fichier électoral bi décision de justice bi lan la woon mooy ci coowal Adji Sarr bi mu fekkewuloon ñu ne ñaari ati kaso yan ko fa daan moo tax ñu génne ko ci fichier bi alors que juge bi musta wax ni génne leen Ousmane Sonko waa léegi ñoom bu dee dañoo génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi ndax dañ koo daan ñaari ati kaso yu mu yu mu war a tëdd te ñoom ñu dem jàpp ko te loi bi ni boo xasee jàpp da nga koy attewaat nanguñ koo atte muy première njombe mais beneen bi mooy ñu ni léegi dañ koo génn ci fichier électoral ndax dañ koo daan ñaari ati kaso donc juge moo décidé waa ab juge décidé wat ca Ziguinchor tribunal d'instance Ziguinchor non seulement dafa atte mais moom sax dafa gën a leeral mbir mi ba que nangeen na ngeen neenal radiation Ousmane Sonko bonom na ngeen ko dugalaat ci biir fichier électoral malgré loolu waa DG e daan na ñoom du def loolu dañoo def recours loolu moo doon seen premier argument premier argument DGE moo doon que état Sénégal day waaja a def recours waxul woon sax ca laa waxe woon ni cendee la na respecté sénégalais yi parce que le directeur général des élections wu état buy waaj a def recours lu ci yoonam même bu état defee recours recours bi du ajandi do do la le juge ba décide ca Ziguinchor kon ñu bañ booba ni duñ ko dugal ni ñoom état day waaj a def recours moo tax mun ñu koo dugalaat tey ñu gis ni tey Sénat mi nga xam ne moo yore élection yi dafa jot requêtu avocat Ousmane Sonko yi mu ne léegi comme jot na requête bi da koy nan ko jox temps mu àtte mu jël temps ñoom douze yëpp toog réunion xool xam ne Ousmane Sonko dañ koy jaay doole mu ne léegi nanu na na na na DG jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage mais malgré ça le directeur général des élections Thiendella taxaw ne loolu du ko def ànd ak ay directeurs yi nga xam ñoo ànd ak moom loolu lañ ci jàngate ñun mooy kon nous sommes dans une situation de voie de fait mooy jaay doole président Macky Sall jaay doole taxaw ne Ousmane Sonko du fi nekk candidat parce que bu demee nekk candidat day gagné loolu leer na ñëpp maanaam sénégalais yëpp la leer yi nekk fii ak yi nekk bitim réew que Ousmane Sonko moom la sénégalais yi bëgg a dénk seen réew à partir de 2024 Macky Sall benn nit bu ànd ak ay tappalekat ñu taxaw ni kenn du fi bàyyi Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que su nekkee candidat day gagné kon nag ñun ñun ñun suite combat bi am nañ réunion ñun waa Lakos parce que dañ doon xaar tey lan mooy décision bi nga xam si moom la président euh, moom la euh, directeur général des élections di décider par rapport ak fiche de parrainage Ousmane Sonko parce que Macky Sall xam na ni conseil constitutionnel bu Ousmane Sonko jëlee ay fiche de parrainage am benn conseil constitutionnel mënta tere Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que ñetti dossiers yi ñu koy toppee amu benn bu ko mën a tee nekk candidat amu ci benn boo xam si atte nañ ko ba ca cëppaandaw ba benn bi kenn atteeg ko ci donc ñoom xam nañ conseil constitutionnel day valider candidature Ousmane Sonko loolu moo tax ñu wuti pexe ba duñ ko jox fiche de parrainage am léegi nag ñun dinañ réunion du man rek maay décider lan la ñu war a def mais dinañ teg un plan d' que président Macky Sall ak ñi mu àndal moomuñu ko doon ñu ko ci seen i waajur doon ñu ko ci seen i maam ba war yi ñun ñu leen jox sunu sañ-sañ ak sunu man-man tànn président Macky Sall 2012 pour mu jiite réew mi mu tas yaakaaru sénégalais yi ba xalay yi dem di deewi ci géej mu tas yaakaaru sénégalais yi ba sénégalais boo gis xolam dafa jeex ñëpp sëngéem ñu gis ab leader boo xam ne li mu leen wax doy na leen ñu bëgg ko dénk seen réew président Macky Sall ànd ay occidentaux ànd ak la France et les États-Unis ñu nekk ci ginnaawam di ko dooleel ne ko Ousmane Sonko bu jëlee réew mi musiba la ci ñun ndate ni ñuy sàcce seen pétrole ak seen gaz ak seen zircon dootul mën a nekk ni ñuy jaayee doole seen waa réew dootul mën a nekk ni jaaye jaayee doole di tibb seen alal di ko yóbbu ngeen di gën a ndóol ñun ñuy gën a développé loolu dootul mën na nekk kon fexe leen ba baare goos bi bu goos bi jël réew mi parce que ko dana doon njariñ pour sénégalais yi waaye bu ko jëlee du doon njariñ pour ñun européens yi waa léegi nag ñun sénégalais yi ci ñoom la des li ñu wax mooy sénégalais yi ci ñoom la des su sénégalais yi seetaanee ba lii Macky Sall bëgg a def ànd ko ak France ak États-Unis ñu jaay doole Ousmane Sonko mi am xam ni musta sàcc dërëmu Sénégal taxaw ni man amul dara loo xam ne naa ko def Sénégal pour sama intérêt bopp réew mi rek moo ma ñor ak joyantiwaat réew mi kon su sénégalais yi anne bañ éliminer Ousmane Sonko bu boobaa ñoom seen musiba ak seen toroxtaange lay doon kon taxawaayu sénégalais yi mooy ñu taxaw tem pour exiger que Ousmane Sonko jël ay fiches de parrainage am nekk candidat à l' élection présidentielle de 2024 bu ko def